mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy farataal di déglu vendredi nag waxtu wi jotee ngeen di baaxoo di teewlu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Serigne Sy Serigne Sy nekk major bu centre euh, bu Gaspard Camara nekk fii ci Grand Dakar monsieur ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM wante laala laata loolu ñu lay remercier vraiment ci sa oyofte ak sa euh, disponibilité bi nga manifester vraiment à l'encontre wala à l'endroit de notre émission euh, monsieur si vous savez monsieur Sy ñu déglu la. waaw maaleykum salaam waa Rewmi FM. maa leen nuyu di leen siyaar yéen ñëpp di jël nuyoo bi nag di ko jaarale ci kii di Fatou Baba moom mi nga xam ne moo waral émission bi. ñu tàmbale émission bi ak euh, monsieur euh, Serigne Sy nekk major euh, tàmbale ko ci li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne moom mooy spécialité am donte def na li nga xamante ne infirmier d'état mais dañuy tàmbale waxtaan bi rek jëm ci lépp lu jëm ci wàllum culture mu mel ni dafa nekk benn baat boo xamante ne. am na ñoo xamante ne ñu bëri ci askan wi eh, familiarisé wuñu ak le mot lii la ñuy gën a dégg moo xam infirmier wala sage-femme wala pédiatre mais et eh, puériculture wala puériculteur tey boo ñu ko doon expliquer eh, ci nu mu gën a simple pour ñu ñuy dégg lu gën ci am benn approche bu gën a yaatu lan nga ñu ci mën a wax Major Sy waaw jërëjëf euh, bala may tontu ci question bi xanaa di ñëwaat ci présentation bi rek euh, di wax ne man Serigne Sy laa tudd mhm. euh, donc nekk infirmier diplômé d'état bi ma bi ma noppee ci loolu ma def puériculteur puériculture di moins boo génnee ci nga nekk puériculteur bi ma noppee ci loolu encore ma def santé publique voilà donc nag bi ma commencé liggéey fii Gaspard Camara ci lañ ma nommé major de la de la médecine mm-hmm. waaw par rapport ak euh, li ma ci li may laaj na dinaa ci kontaan lool parce que dafa nekk loo xam ne man lu ma lu ma mébatoon lu ma bëggoon lu bu yàgg mm-hmm. soit que euh, pédiatre nekkoon sama xel mais nag suñ borom dogalu ko moo tax bi possibilité bi amee lu xaw a jege pédiatre bi mu tijjee rek dama ci jublu mm-hmm. donc euh, daanaka rek euh, def naa définition bi mm-hmm. donc puériculture mooy lépp li nga xam ne rek lépp acte boo xam ne rek yaa ngi koy def ci jëmale ko ci ci xale bi euh, ba nga xam ne euh, maanaam ci màggaayam ak ci ci xel mag yépp rek donc xale bi dina ci mën a génn te du am benn jafe-jafe. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu dañ koy xawata farataal di gis ci ñi nga xamante ne moom mooy plutôt les sages-femmes wax nga ko Euh, ndax euh, fii euh, góor yi farataal di def loolu xaw nañ fi bëri parce que dañ ko wax dañu jàpp ne peut-être lépp jëm ci wàllu mère enfant jigéen peut-être moom moo ci gën a yëngatu wala loolu la ñuy farataal di seetlu. effectivement dafa nekk nag ci boo xam ne ñun suñ culture xamuñu ko. Mm-hmm. Euh, xamuñu ko ba tax sax boo koy def sax day jaaxal nit ñi surtout no ci góor mm-hmm. bu dee ci jigéen sax da am problème parce que boo xoolee lépp li ngay def ci xale bi maanaam day xaw a kii fi jigéen ñu daan dafa jigéene quoi mm-hmm. voilà boo xoolee eh, xale bi euh, da ngay war a changer ay couche am di defar biberon am euh, di ko di ko tëral di xool ni muy tëddee Euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bëri yoo xam ne sax wala euh, buñ ko toppee fii émission bi vraiment du fi xaj mm-hmm. waane nag liñ seetlu mooy góor ñu koy def bëriwul comme ni ma ko waxee mm-hmm. donc jigéen ñoo ci ëpp surtout les sages-femmes mais infirmiers yi koy def ko xam ne góor nga di ci spécialisé lu néew la mm-hmm. waaw ça rek bu ma doon stage wala ma doon liggéey ci yenn milieu yi yenn clinique yi bëgguma tudd tur euh, bu ma daan dugg ci biir crèche bi di jël xale bi par exemple di changer couche am Euh, voilà di préparer biberon bi di leen nampal di jàngal maman yi euh, nu ñuy nampalee mhm. voilà xale bi ban position nga ko war a tegee donc euh, dañ ma naan ah waa li moom góor da koy def man de lii xaw ma ko. Mhm. effectivement loolu bokk suñu culture. Mhm. mais nag lu am la te aussi y a des di encourager aussi nit ñi ñu def ko. parce que boo xoolee crèche yi problème yi ci am na parce que lu ko waral mooy ñen fa teg ñoo footo nekk. te yaakaar naa ne comme que ñun ñu ngi ci sante bi am na ay possibilités wante ñu mën a profité. def ko buñ ko defee aussi état aussi jàpp ci ba nga xam ne puériculteurs yi bu ñu paree wala puéricultrices yi ñu teg leen fan leen war a teg bu nga xam problème du am ci crèche mhm. parce que j'aime vraiment mhm. juste justement euh, monsieur Sy ndax approche bi yomb na yaa ngi koy wax dinañ la xool avec un regard peut-être les jigéen ñi sax mën na euh, passer inaperçu mais xam naa ne regard bi ma lay wax mooy dem góor par exemple di xool moroomu góoram muy changer couche wala di joxe biberon wala mu permettre di di wan jigéen naka ngay allaiter sa doom xam naa tamit foofu am na du ñàkk loo ñu ci mën a expliquer <laughs> waaw yombul yombul waxuma la sax nit ñi nga xam ne defuñu santé mais des fois ñi def santé dañ lay xoolee bët boobu mm. parce que da ngay dugg ci benn crèche euh, nga fekk fa juróom benn jigéen ñeent ñi nekk ay sages-femmes wala ñett ñi nekk ay sages-femmes nekk ay infirmière yow rek cundum nga ciy nekk góor dèjà ñoom dañ la xoolee benn bët bi mais yaakaar naa ne boo ko jëlee ak amour rek doom am problème yow sa liggéey nga def rek bu wàcc jotee nga wàcc mm-hmm. voilà. Mm-hmm. ndax euh, dina xaw a yomb jigéen yi ak góor yi ci ngeen bokk façon liggéey boobu. non ça non ça ça dépend parce que euh, puériculteur euh, mun na ko nekk te doo def travail d'équipe donc mu ngeen amee entente rek. donc euh, ku nekk da lay responsabiliser ku nekk xam li nga war a def mhm. donc bu dee entente bu ngeen am rek du am benn problème mhm. voilà mhm. mais fekkee entente amul nag dina am problème te bu amee problème ci xale yi voilà. Euh, tey jii ban niveau d'étude la ñuy mën a euh, def ba mën a génn genre euh, am diplôme bi. voilà pour nga def ko nag Sénégal fii nii il faut que nga am d'abord diplôme d'état infirmier. Mhm. wala nga nekk sage-femme d'état. donc nag ci sage-femme boobu yaa ngi def formation bi normalement ci trois ans moo xam nga génne ci privé moo xam nga génne ci public bi léegi soo ko defee ba pare nag nga bëgg a def puériculture. donc da ngay dem à l'université Cheikh Anta Diop IPS voilà ñoom commencé na ñeen ñu commencé mais moom boobu laa mhm. donc boobu nga def fa une année une année da ngay def am sa licence en puériculture mhm. voilà mhm. Euh, boo sa licence en puériculture est-ce que automatiquement da ngay commencer exercer comment est-ce que naka ngeen koy eh, allier Euh, waaw euh, bala ngay def formation bi dafa fekkoon ngay liggéey parce que comme ni ma la ko waxee sànq mm-hmm. euh, da ngay nekk infirmier pare wala nga nekk sage-femme te loolu boo ko nekkee nag soit yaa ngi exercer wu. Mm-hmm. ci yi wala ngay exercer wu ci privé bi par exemple ci clinique yeeg wala ci yenn entreprise yeeg ainsi de suite ainsi mm-hmm. léegi nag booy defi licence bi daan la planifier ba nga xam ne nii du la yàqal sa liggéey da nga mën jàngi en temps di di continuer sa sa sa liggéey léegi nag soo paree am sa licence yow nag vraiment léegi. Euh, service bi nga war a nekk mooy bu xaw a jege euh, xale yi c'est-à-dire service pédiatrie normalement foofu la war a yóbbu mm-hmm. mais nag bu na bu na bu na puériculture aussi affaire xale mi ngi ci mais aussi y a les données que tu dois se normalement tu dois être la major là-bas service mm-hmm. parce que en dehors de c'est toi-même qui dois planifier c'est toi-même qui dois gérer les la, la, le personnel Mm-hmm. kii la parce que au moins am nga leen ëppalee mm-hmm. donc boo gisee ñu doxalee nag si du noonu nga corriger leen nii ak nii ak nii la ñu war a mm-hmm. aussi de de, de corriger euh, quelqu'un ou bien quelqu'une loolu la. Euh, xam nañ ne lépp lu jëm si wàllum peut-être infirmier wala pédiatre yàgg na ñu bëggoon xam rek fii ci Sénégal ndax spécialité bii di puériculture yàgg na fi ak euh, boo ñu doon mën a wax lim bi nga xamante ne ñu ngi koy exercer est-ce que am nga ci ay lim ak yoo xamante ne des recherches plus approfondies par rapport à sa waaw avant avant ñun ñu ko doon entamé de ñi fi nekkoon ay puéricultrice euh, sax parce que puériculteur yoo amul woon mhm. parce que il paraît que ñaari daam la woon kenn ki jàngal na ma Madame Guèye fii dëkk fi sax soriwul ci ci Grand Dakar mi fi ba léegi semaine passée na fi sept semaines parce que jàngal na bi may def formation infirmière bi may defaat aussi puériculteur yoroon na ma mu naan Madame Guèye Henriette mhm. donc amoon na keneen ku ko jiitu aussi mais kooku j'ai oublié son nom biñ demee te ñun ja defewuñu koon woon fii Sénégal ñoom France lañ ko defoon je je pense à mm-hmm. Bordeaux loolu la ma expliqué woon mm-hmm. mais Sénégal biñ ko tàmbalee yàggut parce que ñu ñoo doon nekk euh, troisième promo mm-hmm. voilà donc booy xayma total bi ba fi ñu toll nii bi am na boo ko totalisé daal bu ñu matee soixante ca la yem boo ko totalisé normalement soixante personnes ca la non yoo xam ne daal leer na am nañ seen diplôme bu ko tolloo ca la yem Euh, parce que on a un groupe WhatsApp. Mhm. ndax lim bi euh, yemamaay na par rapport ak la population sénégalaise ndax amul euh, déficit. waaw déficit am na ko déficit am na ko parce que man objectif bi li ma yaakaaroon moo ko tax a jóg boo xoolee pédiatrie Dakar lañ nekk Thiès boo demee ci région yi rarement nga fiy trouver pédiatre mhm. du ma ne nag boo defee puériculture war nga nekk pédiatre non. mais au moins war nga mën a def acte yoo xam ne ba sauver xale bi ba baa muy àgg ca pédiatre bi mm-hmm. mais fekkee nag région bi dem nañ fa yóbbu nañ fa xale bi amul puériculture yaaka des infirmiers des sages-femmes des fois sage-femme bien vrai que affaire puériculture dañ ciy laal seen niveau la tuuti avant ñuy spécialisé wu mais day am ay manquement ba nga xam ne xale bi mën nañ ko mën mën na ñàkk bakkanam avant muy àgg ci pédiatre alors que bu fa puériculteur nekkoon wala puéricultrice amaana loolu mën na fa bañ a am mhm. yaakaar formation bu taxawee loolu état waroon na ci jàpp ba nga xam ne nii ba fépp fu pédiatre nekk puéricultrice wala puériculteur jege ko fépp foo xam ne aussi pédiatre amu fa mu yóbbu fa puériculteur et puéricultrice mhm. parce que yana am pagay am na fi bari na fi waaw mhm. parce que soixante euro bu leen géré woon région bu na am kenn wala ñaar au moins bëri na fi euh, bëri ngeen fi wala bëriwu leen mais euh, certainement buñ ko décentraliser woon dina dina gën a am solo. Mm-hmm. dina am solo parce que boo xoolee ñi génn ñëpp. Mm-hmm. man sama collègue yi may takkine des fois ci groupe WhatsApp bi ñu ci bëri ñu ngi Dakar. Mm-hmm. ñu ci bëri ñu ngi Dakar ak ak Thiès donc mën nañu gën a tas parce que en général euh, clinique yi ñoom ñu ngi commencé xam intérêt puériculteur et puéricultrice en général ñoom ñoo leen jël le plus souvent. mais hôpitaux yi war nañu par rapport ak Fann peut-être hôpital Albert Royer voilà y a y a y a un de nos professeurs boo xoolee fu am crèche bi wala euh, euh, wala hôpital Albert Royer puéricultrice ñu ngi fay commencé di bari. Mhm. Mm, parce que ñoom xam nañ parce que en général ñoom ñoo ñuy jàng ñoo suñu professeur. Albert Waye Albert Waye yi ñu jàngale parce que ñoom ñoom Ousmane Ndiaye professeur Ousmane Ndiaye Idrissa. Mhm. voilà Faye ñun ñëpp parce ñoom fa fa nekk. Mhm. donc ñoom xam nañ njëriñu formation bi xam nañ nit ki bu génnee donc fan la war a ne. jox nañ ko euh, kii bi daal euh, nu ñu koy waxee sax ci euh, jox nañ ko dayo bi daal xam nañ nañ gëdd bi très bien nit bu génnee fan la war ne ak kii ba lan la ma mën a par rapport ak ci sama activité mhm. voilà mhm. Euh, seen liggéey ah balaa muy ñëw ci li nga xamante ne moom moo di premier soin bu ñuy jox euh, tout tonk bi yaakaar naa bu ma juumul mun ngeen suivre benn femme boo xamante ne dafa euh, toll en état de grossesse am bu ko yàlla maye bakkenam rek ci doom bi ngeen di gën a focaliser wu Euh, voilà comme ni nga ko waxee dafa am formation de base. bu mhm. naan infirmier d' état wala sage-femme d' état euh, ñun dañuy nekk ci àll bi bu ñu génnee ñu affecté ñu ci benn poste ci village euh, man nga am sage-femme comme man nga mañ am sage-femme mhm. donc bu la yàlla nattoo nag amuloo change femme par exemple man lu condition yi daal na ma amuloo change femme ti obligé yaay def CPC mooy consultation curative primaire nga xam dara jotu ko mhm. en même temps yaay defaale aussi CPN. consultation prénatale mooy jigéen wérut ni ak PF yëpp yaa koy def parce que amuloo sage-femme donc nag kooku boo xoolee li def mooy sage bi muy ëmb ba bi muy am doom moo koy topp léegi nag que sage-femme bi ak infirmier bi bu la yàlla dimbalee na nga def puéricultrice loolu bonus la ci yow puériculteur c'est un plus waaw bonus la donc day tax yow ni nga waroon bu xale bi juddoo maanaam waxuma sax avant xale bi juddu yaay ji bu nekkee femme enceinte lan la war a lekk yan condition ci la war a nekk yëpp dañ la koy jàngalaat mhm. bokkut sax sax li la jàngaloon bi nga def infirmier xam nga mhm. donc ki nga xam ne sage-femme kese la wala infirmier kese la ak ki nga xam dafa def infirmier nekk sage-femme def puériculture donc ni muy gérer sage-femme enceinte ak xale bu juddoo mën na bañ a doon am différence mhm. lu mu ndaw ndaw ndaw dana ko am parce que kay jàng na loo ne par exemple yow bi ngay jàng def dana joxoon juste formation de base alors lii spécialité la waaw moo tax ma ne la bi muy ëmb ba bi muy am doom yëpp dañ koy topp. Mhm. mais nag ça dépend aussi du milieu. d'accord ça dépend du milieu voilà ça dépend du milieu mhm. que bu ma la ça dépend par exemple man euh, boo nekkee puériculteur ñu affecté la hôpital Fann wala par exemple lu mel ni Gaspard y a des am ñoo xam ne ils préfèrent dem gis gynéco mhm. gynécologue mu suivre seen grossesse du début à la fin bu ñu amee doom accouché yóbbu nañ ko crèche ku ñu fa fekk ba mën na ne mën ci fekk aussi puériculture mais dafa am ay limites peut-être mm-hmm. mën ci wax la li def rôlam mm-hmm. foofu mm-hmm. bu dee ci ci ci centre santé aussi même chose am na un médecin même bu amul gynécologue am na sage-femme am na ay maîtresse sage-femme ñoom man nañ suivre femme bi bu muy ëmb bu amee doom ñu yóbbu crèche foofu nag mën na am pédiatre comme man na am ay infirmier ñu gérer bébé normal léegi nag bu dee nag ci centre santé en général ce niveau foofu sa foofu la gën a feeñee par rapport ak centre santé bi parce que des fois mën na am benn mën na pédiatre mm-hmm. parce que donc ñoom bu accoucher salle d'accouchement ñoom lu leen jaaxal ci xale bi rek yow la ñu woow d'office d'office c'est ça qui normal mm-hmm. moo tax ma ne la sànq normalement waxuma sa hôpital mais centre santé bu nekk nekk ci Sénégal même bu amul pédiatre war na am puériculteur wala mm-hmm. parce que premier soin dafa am solo premier soin euh, man nga mën nga sauver nit ki ci premier soin bi comme mën nga rey nit ci premier soin bi parce que lu tax mën a sauver bu fekkee xam nga li ngay def. Mhm. bu fekkee xamoo li ngay def nag mën nga ko rey. xam nga li ma la wax. Mhm. voilà loolu dafa am solo. Mhm. rien que position bi ngay def nit ki rek bu dara amee rek loolu mën na ko sauver am na position yooyu def aussi mu am yenn signes yi na ko rey. moo tax ma xam li ngay def dafa am solo trop ci premier soin. voilà. Euh, justement monsieur Sy yaa ngi koy wax de tout à l'heure yaa ngi wax ne euh, milieu bi def ci am solo certainement bu fekkente ne centre yi nekk fii ci Dakar excepté peut-être Albert Royer bi nga xamante ne ñëpp xam nañ ne seen particularité moom mooy euh, fecc xale yi ci jàngoro bu ñu mën a am mais boo génnee ci cadre yi nga xamante ne moom moo di Dakar dem ci fi nga xamante ne mooy à l'intérieur du pays médecin infirmier nga je suppose que balaa ngay ñëw Gaspard tu as eu à certaines régions ba xam euh, approche bi benn la fii ak fee nag le le regard foofu aussi le regard de la population parce que les mentalités aussi dafay différer aussi oui doo dégloo ni mooy waxee rek nga xam ne ah. donc xam naa ci am naa ci expérience lu ndaw ndaw donc euh, par exemple boo nekkee ci àll bi amoo sage-femme mm-hmm. Euh, il est un peu gênant par exemple yow en tant que góor ngay xool seen seen i jabar donc am na ñoo xam ne sax bu ñu yëgee ne par moo koy visite dañ koy aaye mm-hmm. exemple am na jigéen ñoo xam ne donc ñoom il préfère góor xool leen parce que en général dañ naan góor moo ëpp yër yërmande mm-hmm. donc nag góor ñu koy wax peut-être euh, xamuñu wala fekkee wuñ circonstance mais jigéen en général man bi nekk foofu Euh, jigéen bu ma daan consulter defal ko CPN wala ma accoucher ko doo bëgg demaat ci sa CPN mooy consultation prénatale mooy visite yi ngay def boo ëmbee lu mooy visite donc en général góor gi sax moo lay gënal que que jigéen ñi mm-hmm. parce que boo leen dépend mm-hmm. am na ñoo ne aussi donc seen culture wala donc seen respect seen kilifa mm-hmm. tax donc ak góor noo a comporter que soit nga yaroo nga correct ñu il préfère ñu gis ñu gis jigéen donc àll bi loolu moo fa nekk loolu mm-hmm. da day xaw a métti mm-hmm. mais boo demee ba gagné sa confiance donc ñu wóolu la doo am problème mm-hmm. mais il suffit que nga def naka si du noonu ci kenn rek même ñeneen ñi sax donc loolu mooy problème lu mooy inconvénient àll bi donc bu ñëpp na bon nga même ku xamul ci yow dara daan bon nga mais bu ñëpp na baax nga ñëpp danaan baax moo tax daal boo demee fexe ba xam li ngay def yem fi nga war a yem def li nga war a def xam ne doo am benn jafe bokkul famille nga xool leen ak euh, góor xool leen jigéen xool leen yëpp en général la ñu yemale. Mhm. boo xoolee fii gynéco yu góor yi boo demee c'est fi ñuy consulter donc ñoo ëppale sax jigéen ñi nga xam ne ay gynécologue lañ mhm. boo xoolee donc moo lay na ñoom y a un changement de mentalité par mhm. rapport a ça. loolu mu mu aussi yéen ñiy yëngatu ci vous êtes ma ne exposé mais peut-être euh, c'est un peu plus compliqué li ñuy accepter ñu jigéen ñi yéen du leen koy accepter donte seen lim dafa xaw a restreint. Euh, waaw su suñ lim xaw na restreint mais accepter bi ça dépend ci li ma la wax mentalité bi. Mm-hmm. ça dépend ci mentalité bi ça dépend aussi ci comportement ki koy def moo tax éducation de base loolu daf am solo bu baax a baax. Mm-hmm. éducation de base dafa dafa ci am solo parce que jigéen gu ne ngay rencontré euh, ku nekk ngay gis donc euh, des fois nga gis koo xam ne pour wax ak moom problème la. wala day bëri kersa wala wax bi du yomb. wala euh, par exemple suñ mbokki alpulaar yi buñ na la seen biir mooy métti alors que nax ba mooy métti. voilà mm-hmm. boo jëlu sa temps mën nga fóos sa diagnostic wala nga bindal ko garab boo xam ne mën na ko jot mu musiba. Mm-hmm. yëpp dañ koy jànkoonteeg. wala nga bindal ko garab defal sa kanam mu jël ko naan ko. Mhm. parce que xamul. Mhm. parce que ni ngay bindee ordonnance fii Dakar wala faram yenn milliers yi ak ni ngay bindee ordonnance ak euh, li nga koy wax bokkul. Mhm. parce que fële boo bindee garab mu dem jënde ko ti obligé da nga ko ñëwaatal nga wan ko ni ñu koy naanee. prise yi alors que fii mën nga bindee ordonnance ak jox ko bu demee pharmacien bi da expliquer parce que en pharmacien. même des fois mu déplacé mais y a un pharmacien. Mm-hmm. ci àll ba c'est un dépositaire en général yow sax yaa koy formé ci yu bari. Mm-hmm. donc boo bindalee nit ki garab. malade bi dem mën na ko jël leneen surtout mm-hmm. jigéen wér moo tax on fait là très attention kun bindal na la ci bureau bi ñu wax koy jëlee waaw yombul parce que des aussi nga def CPN comme ni ma ko waxee visite koo xam ne moom ak sa yaay yooyu yëpp da yooyu yëpp da nga koy jànkonte xam nga ça c'est pas facile. Mm-hmm. mais tu obligé de faire parce que sa métier la. Mm-hmm. voilà yooyu mm-hmm. yëpp da nga ko doon rek mais fii boo ñëwee comme que y a de gynécologues à Dakar y a de sages-femmes presque doo accoucher. doo accoucher donc yi am na fi donc yow da ngay suivre sa activité rek voilà. d'accord mhm. d'accord euh, ngeen di ak euh, apporter les premiers soins aux nouveau-nés mais il arrive que des fois tamit euh, ngeen di def appel ñi nga xamante ne ñoom ñooy pédiatrie ñoom tamit dañu spécialisé ci lépp lu jëm ci wàllum tout tonk ñu bëggoon xam rek ci ban moment wala ci yan complication la vraiment un puériculteur di solliciter l'aval wala l'aide donc don pédiatre mhm. mooy li mu la wax sànq par exemple xale bi euh, bu juddoo en général euh, dañuy woo puériculteur c'est normal mhm. euh, bu ñuy accoucher sax dafa war a taxaw normalement bu ñuy accoucher mhm. hmm? ce qui est normal s'il y a un accouchement ce qui est normal s'il y a un accouchement sage fekkee sage femme mooy accoucher wala gynéco bi kenn si ñoom bu dee gynéco bi mooy accoucher sage-femme war na taxaw infirmier war na taxaw puéricultrice bi wala puériculteur war na taxaw pédiatre bi war taxaw aide bi war taxaw c'est ça qui est normal pour un accouchement mm. mais nag mooy matewul donc su mate mooy matewul nag des fois on remplace le gynéco par une sage-femme mm -hmm. la puériculteur la puéricultrice ou bien le puériculteur mu nekk infirmier ba aide moom du changer en général ñuy doon trois mm-hmm. mais normalement accouchement comme li ma la njëkk wax noonu la war a demee mm-hmm. léegi nag xale bi su juddoo su normalee am na ñuy jàngal na tax normal na est-ce que xale bi yuuxu na est-ce que xale bi yu parce que xale normalement bu juddoo dafa war mm-hmm. su yuuxu rek yaa am problème su yuuxul su yuuxul maanaam juddoo na nem na tekk amul benn bruit yaa problème léegi nag fekkee nag pédiatre nekku fa puériculteur ba rek moo fa nekk wala puéricultrice ba hmm. war na xam li tax xale bi yuuxul su demee nag ba lool ëpp ko loxo en général dafa war a woo pédiatre hmm. moom ñoo def intervention bu ko leereen rek mënu ci dara dafa war a woote waa na waru tatone hmm. anomalie yi nag bëri na voilà am na yu mën a xaar am na yoo xam ne mënul xaar parce que ci accouchement xale bi mën mën a dam maanaam fracture claviculaire fii mën a dam mhm. boobaa yooyu par exemple mën mën a xaar tuuti juste il faut le signaler mhm. ak yeneen ak yeneen yeneen yu ma anus bi wala déformation des organes génitaux mën a nekk mhm. yëpp après li ñu defaral la mais dafa am yoo xam ne mënul xaar lu mel ni ay détresse wala xale bi juddu am ay ay teer wala ay ay yeneen ak yeneen a yeneen ak yeneen mhm. donc yooyu yooyu mënul xaar mhm. mënul xaar surtout xale bu judd yu waxul moom mënul xaar mhm. il faut réagir vite sinon sinon danga danga koy danga koy perdre voilà euh, xale bu juddu yuuxuwul mënul xaar mais aussi léeg-léeg nga dégg ñoo xamante ne dañuy seen jabar ba mu accouché ba pare dafa doon def euh, genre hémorragie ndax du tamit euh, hémorragie bu yàgg boobu le fait que ñi war a assister ci accouchement bi yëpp bu ñu matewul tamit ndax loolu aussi duy farataal di indi ay complication parce que surtout dernière année yi gis nañ ne loolu dafa commencé bëri ñu ngi sensibiliser mais ba léegi kenn mënu la wax le mal certainement est un peu plus profond mais pour ñu mettre le doigt la où il fait mal wala mu xaw a nekk lu sensible des fois yàlla te disent Euh, ndogal la dafa dafa accoucher ñu jël ko fii di ko yóbbu temps boobu yëpp tamit est-ce que le fait que ñi war a taxaw yëpp bu ñu taxawul tamit du xaw a yokk complication yi suite suite accouchement waaw xam nga sax dama la wax li normal rek. Mhm. mais li am euh, lu dinaa si ñëw. Mhm. Euh, di la wax benn expérience mu daw rek. par rapport ak bi nekkee ñun àll ba. Mhm. en général boo daan accoucher dawul am problème. da ngay soo xam ni day dem tool ba wàcc. ñëw hôpital même pas dafa def trente minutes wala de temps accouché dem ñibbi mu nekk ci beneen liggéey beneen activité ñëw accouché ci normal dem yoonam. Mhm. en général sax yow sax doo intervenir matron bi moo fay ne accouché ko normalement du am benn complication. Mhm. c'est très rare lan lay woo nga ñëw di réparer ay déchirures yi rek yu ay ay yu mu mënta nga def épuisure c'est très mhm. ko doon am léegi nag. <coughs> fii fii liñ liñ fi seetlu liñ fi léegi comme ni nga ko waxee donc xale yoo xam ne waa nit ñoo xam ne dañu am doom mhm. ñàkk seen doom wala ñu am doom di perdre der bu bari mhm. yooyu nag li koy waral mën a doon mën a doon lu baree bare bare bare bare bare bare mën a doon ay feebar yoo xam nekk na ci nit mhm. mën a doon ay yoo xam ay sédentarité man hmm? koo xam ne day ëmb def dara mën a doon koo xam ne par exemple euh, bu ëmbee du def dara day toog benn place wala mu yor ay feebar Hmm? Mm-hmm. wala par exemple yow boo ñëw hôpital li ñu la wax doo ko def est-ce que bilan bi ñu la demandé def ko correctement voilà est-ce que doon nga def say échographie normalement est-ce que doon nga def mm-hmm. que l'aspect social aussi est très important est-ce que am na jigéen ñoo xam dañu am kersa sax boo leen bindaloo daal ñu doon wan ko seen jëkkër am ñu am problème boobu mm-hmm. parce que xamuñu aussi seen seen vie de famille nan la demee mhm. yëpp ay ay ay ay yoo xam ne lu ñu war a ay complications yu mën a indi aussi ci ci accouchement bi mhm. euh, beneen bi aussi c'est tout à fait donc liggéey boo gis bu ne euh, am na ñuy jubal am na ñu di jubal moo tax maanaam l'éducation de base lu am importance la donc ñun ñëpp mën nañoo amandoo infirmier même diplôme bi. Mhm. mën nañoo amandoo même diplôme sage-femme même diplôme médecin ainsi de suite ainsi de suite mhm. mais comportement yi ñi nekk ci nit du doon benn. Mhm. comme côté à côté moo tax man il faut aussi pour travailler dans un milieu ça c'est la santé publique. il faut nga xam milieu bi d'abord. par exemple bu la affecté lu mel ni Dakar man ma jógee lu mel ni Jolof wala feneen ak feneen xaw ma dara Dakar hmm, bu ma defu ndànk bala may adapté wu. par rapport ak population dakaroise bi dina am problème. Mhm. waaw noonu la donc bala approche bi bokkuñu parce que ni may aborder ne ci village yi du bokk ni may aborder ne fii. Mhm. moo tax ma ne connaître le milieu est très important il faut mhm. nga xam milieu pour nga liggéey boo ko xamul doo ko def. voilà du affaire ay jàng am yenn diplôme non non non. Euh, boole jàng bi expérience bi mais aussi euh, milieu bi nga xamante ne da exercer il faut nga Euh, confondre avec la masse vraiment xam naa pour mener à bien le travail bi nga xamante ne moom moo moom mooy sa ressort ñu ñu continuer ci loolu euh, ci tout au début de l'émission ah yaa ngi doon wax euh, lépp loo xamante ne dafa am trait ak li ñuy duppee ay crèche wala xeet gu tey mu mel ni yéen ñi nga xamante ne yéen a yëngatu ci wàllum puériculteur ngeen nekk puériculteur ah sax xam ne auditeurs yi déglu xam ne ça n'est pas peu familier comme à l'image des autres Sénégalais ah xam nañu sage-femme pédiatre infirmier mais puériculteur moom dafa dafa xaw a diis daal euh, yéen ñi nga xamante ne yéen a yëngatu ci wàllu woowu après ñaata année d'expérience ngeen di mën a ubbi crèche parce que su ma la déggee bu baax lépp lu ñuy def ci wàllum tout tong am ngeen euh, aptitude bi ak expérience bi après nag euh, ñëw ci seeni diplôme entre autres ci ban ñaata année d'expérience vraiment ngeen mën a am aptitude bu ubbi crèche oh, voilà comme comme expérience pour ubbi crèche euh, xam nga par nga def ay recherche mhm. par rapport à l'Europe mhm. te Europe bokkul ak fii mhm. normalement ñun soo paree rek mhm. euh, am nga possibilité tijji tijji crèche si vous avez une expérience maintenant expérience fan lay dépendre aussi sa sa formation de base mooy infirmier bi nga def wala sage-femme bi nga def mhm. parce que loolu mën nga ci gagner expérience bu bari bari les bonus la rek lay apporter voilà donc loolu boo ko boo amee sa diplôme bi rek année suivante mën nga mën nga mën nga tijji sa crèche mhm. mais nag des fois day day xaw a di difficile avec les moyens donc difficile mooy moyen pour tijji ko parce que ça demande du matériel mhm. demande des parce que est-ce que xam nga Dakar boo amul kër fa ngay loger pour tijji ko day compliqué di fay day day bëri xaalis aussi matériel aussi bi ngay utiliser day day laaj xaalis matériel xale crèche dafa cher mhm. dafa cher moo tax en général ñi koy tijji ñëpp fii euh, duñu ay puériculteurs wala ay puéricultrices en général mm-hmm. en général dañu am seen xaalis ay femmes d'affaires comme ce genre gi am xaalis rek tijji ko léegi jël ku mel ni man wala keneen rek wala wala intégré quoi justement justement monsieur euh, Serigne si foofu laa doon ñëw ah wax nga ne pour ubbi crèche c'est pas donné non seulement di nga jël ñoo xamante ne c'est un personnel qualifié ak matériel bi nga xamante ne xale bi moom lay soxla kon Euh, li ñuy wax euh, l'exception confirme euh, la règle parce que boo jëlee quartier yi yu bëri yi léegi il faut tourner da ngay gis crèche léegi dañ doon def sax de six mois jàpp trois ans mais am na ci ñoo xamante ne sax dañ lay bindal de trois jàpp deux ans entre autres mu mel ni kon loolu mooy expliquer des fois ñu ci xaw a jànkonteel ay ay ay ay ay ay jafe-jafe am na benn benn benn incident bu fi jotoon am ba xale bi maara day taali certainement mu génn àdduna way juróom mi sax demoon xam naa dossier bi mu ngi pendant foofu duñ fi xuus parce que dossier bi dafa nekk euh, devant la justice mais aussi peut-être boobu benn exemple la wala benn bu fës la ci ñi nga xamante ne ñu ñu ngi exercer métier bi te non seulement euh, nekkuñu dans les règles de l'art mais amuñu tamit le personnel qualifier parce que euh, ci autopsie bi dañu wax ne premier soin yi ñu waroon accordé au petit au tout petit moom la ñu maîtriser wu ndax foofu aussi tamit waruñu gën a mën a regardant par crèche yi comme mu mel école privée rek mais lu ñu wax a affaire xale moom c'est délicat ba nga xam ne ni képp koo xamante ne war nga ko teg en place euh, vraiment il faut que ñu ñu ñu regardant ci parce que trois mois six mois mënalul boppam dara bu fekkente ne yow buy sëkkat xamuloo ndax da nga xam ndax température bi am na donc foofu aussi lan nga ñu ci mën a wax euh, major si waaw loolu boo xoolee ñoo ko gisandoo hein mm-hmm. fii boo jógee fii tey di ñu ba Wakaam ñaata crèche nga fi romb mm-hmm. ñaata garderie d'enfants Euh, en général ñun ñoo koy tijji boo xoolee ba xool en général sont des femmes d'affaires li ma la wax ñoom mm-hmm. xaalis tijji ko donc ami moyen am ay xarit ñu leen wutal ay clients ñu fay déposer seen i seen i doom ñan ñoo fay ne lu ci ëpp ay bon la ñu doon. Mhm. voilà buñ ko waxee buñ ko waxul loolu moo fa nekk c'est mhm. très rare ñu fay trouver parce que ñun xamante nañ. d'accord donc bëriwul bëri goo xam ne nii rek buñ euh, ñun ñëpp ñu ngi ci ci milieu yooyu donc non non non ce n'est pas le cas. Mhm. voilà li tax muy am nag euh, ñi fa war a nekk nekkuñu fa. parce que euh, des fois xam nga yaramu xale mën a tàng. mais yaram bu sedd moo gën a dangereux. que bu tàng voilà. loo gis na hypo moo ci gën a dangereux que que hyper. d'accord euh, boo xoolee mag ñi en général bu ñuy xool ku faatu lu ñuy wax ah moom da loxo cat loxo baaraam yi sedd na de. waaw sedd na guy. Mm-hmm. donc yu da lay wane na kii dem na. Mm-hmm. donc yu preuve donc pour te dire que hypo moo gën a dangereux iper hyper. Mm-hmm. voilà léegi nag fekkee ne kii gère xale yi xamul ipo wala hyper moo gën a dangereux. xamul xale bi coroxaan nan koy def nan na koy tëralee nen geste dañuy def xale bi fat par exemple jooyul noyiwul wala naan na benn affaire yaay ji mën na koo indi foofu ak biberon ñu koy nàmpal mu coroxaan mu fat way mhm. mais xamuloo ban geste ngay def nee naa la ko sànq wax naa la ko mhm. premier geste dafa am solo mhm. mën na sauver comme mën na bañ a sauver soo ko xamee tu t'en mais boo ko xamul da nga ko indil musiba voilà bala ngay dem dinaa la ci may quelques gestes rek yu ndaw <laughs> <laughs> dinañ def quelques gestes mais justement Major euh, concrètement qu'est-ce qu'il faudrait faire vraiment euh, par rapport à à tout cela euh, la ñuy wax euh, dañuy ñun dañu xaw a baaxoo lu am ñu ne peut-être ndogalu yàlla la c'est vrai ndogalu yàlla mais à un certain moment aussi dañuy mel ni ne dañu xaw a laxiste ci yenn choses yi lan la ñu war a mën a def surtout ci côté affaire pas nekkuñu fi en croisade contre les crèches les auditeurs yéen ñuy déglu nekkuñu fi pour faire le wala de qui que ce soit mais comme premier soin dafa am li nga xamante ne moom mooy solo te xale tamit moomin la mënalul boppam dara on pense bien que balaa ñu leen di jox euh, accréditation wala liy certifié que ni ñoom war nañu taxawal crèche am na am na ay critères yoo xamante ne war nañ ko remplir tey lan nga war jàpp ne rek war nañ ko mettre en place ñuy saytu wala quitte à ce que chaque quinze jours wala chaque un mois ñu ñëw def visite wala introspection lan nga ci xalaat loolu moom wax bu gàtt laa la jox mooy état rek moo ñu mën dimbale pour mu gaaw état gese mm-hmm. comme ni nga ko ci école privée yi ku neex léegi tijji école ku mu neex tijji école boo amee saxal tijji école di jàngale. Mm-hmm. moo xam santé la moo xam leneen la école santé léegi ñaata lañ fi Sénégal yéen am pagay yan école ñoo baax da koy compter du ma def publicité. Mm-hmm. ah c'est la même avec crèche yi aussi mais état bu ci jëloon décision ne ku amul papier bii doo tijji crèche ku amul diplôme bii doo tijji crèche. te boo tijjee crèche néeg nii néeg nii lay doxee mënoo mhm. ñu tëj ko mhm. chaque mois wala chaque trois mois wala chaque six mois wala dès l'ouverture des classes ñu ñëw def fa descente xool mhm. su condition réew ñu tëj ko bon yëpp jeexoon na parce que ñun waxal lañ man ñun affaire yi amee am na sama benn xarit bu ñu invité woon télé wax na ci voilà moomu jiite une année moomu jiitoo benn année la génn après man maa ñëw topp ci ñoo ci ñoom invité nañ ko ci Euh, benn télé. Mm-hmm. Ah, pour éviter la publicité. Mm-hmm. donc invité nañ ko benn télé wax na ci. Mm-hmm. mais ñun wax kese lañ man wax kese lañ man mënul leneen voilà. moment boobu sax ça n'a pas été facile xam naa pour ñu taskatu xibaar yi ndax euh, dawoon nañu de partout pour jéem a xool kan moo ñuy mën a édifier ci naka la ñuy def pour mën a tabaxal taxaw crèche mais bon euh, dañuy naan peut-être dañ leen di yàqal seen liggéey entre autres on en a entendu des des des des vertes et pas des mûres pour euh, bi dossier boobu éclaboussé c'est juste une une une parenthèse ah ñu daal di tëj foofu mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi teewlu seen émission bii di SOS santé te mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Serigne Sy mu nekk major fi si ci centre euh, santé bu Gaspard Camara Euh, wëlbatiku rek waxtaan euh, waxtaane leneen li nga xamante ne moom moo di centre bi di gaspar Camara xam nañ ne bu ñu waxee Gaspard rek xel yëpp dañuy dafay dem ci lépp lu jëm ci wàllum santé maire et enfant ñu bëggoon xam rek en dehors de cela euh, fii ci Gaspard yan yan spécialité ngeen yeneen ngeen fi am waaw centre santé Gaspard Camara comme ni nga ko waxee ku ko xam wala ku ko déggee xam na ci santé maire enfant la mm-hmm. ci loolu lañ ko xamee mais nag des fois population bi ñoom ñooy soxla ba bo boo boo deful yenn spécialité rek donc euh, mën na indi ay jafe-jafe mën na sooxe donc bu sa population soxlaa dara ca sant da ngay def la tuuba ba indi loola donc suñuy kilifa suñuy supérieur dox nañ ci dem macha allah centre bi boo xoolee am na spécialité yu bari mm-hmm. mi ngi dox boo fi matin. Euh, doo ko sax sax centre da nga yaakaar ne hôpital la mhm. te centre santé la mhm. voilà donc spécialité yi am ay urologie fi mhm. donc cardio yu yëpp fi donc ophtalmo euh, voilà rhumato yu yëpp ah, yu fi ah chirurgie am fi voilà voilà <laughs> dermato aussi am na fi ah, yana ah, ah, spécialité yooyu mais ndax am ngeen euh, euh, ressources humaines boo xamante ne moom moom moom moo accompagner aussi pour les spécialités à mm. part l'ophtalmo euh, la chirurgie euh, la chirurgie l'ophtalmo et l'odonto mhm. vous donc boo xoolee ñun ñoo fi ñëw les jours donc de huit heures à seize heures yi ci des après midi bi lañ ñëw à partir de quinze heures mhm. dañuy def ko seen consultation mhm. Mhm. donc mais yëpp mi ngi fii mais par rapport ak ressource humaine bi xam nga ressource humaine du doy du doy nag mais na moo tax ñu ne état war nañu jàppale ci loolu euh, war nañu jàppale ci ressources humaines que euh, du du mas a doy même bu woon tey cinquante euh, déwoon da nga soxlawaat cent wala doy donc bu ñu jàppale boo xoolee état recrutement yi muy def en général àll bi la. Mhm. àll bi la donc même projet yi wala ONG yi bu génne aussi ñoom euh, li ñu bëgg mooy ñi ñu recruter que soit sage-femme ou bien infirmier ñu yóbbu leen ci àll bi. Mhm. ba ci yàggu rek Ismaïla dégg nga mhm. donc xale yi ci recruter mu ngi xam sage-femme la wala infirmier ñëpp ci àll bi la leen yóbbu. donc ñun suñuy moyens la ñuy demee. boo xoolee majeure partie bi. Euh, donc ci structure bi moom la ni moom lañu jël en charge tax mu dafa métti mhm. voilà boo ko bëggee di di defaat ay réflexion di yokkaat wala di jënd matériel day day xaw day xaw métti moo tax mhm. état aussi war na war na war na gestu Euh, waa Ndakaaru ci recrutement yi quoi. Euh, ci ci ci ci ci seen euh, rentabilité bi sax laay ñëw xam naa ne du ko tax a demee noonu surtout que depuis un certain temps 2013 wala 2014 lépp lu jëm ci xale yi de zéro à cinq ans donc. lépp lu jëm ci seen prise en charge daanaka se c'est c'est gratuit te xam nañ ne bon euh, Sénégal ñu wax ko waxuñu ko euh, tout temps yi xaw nañoo xaw a bëri donc euh, mën nga jógee feneen sax ñëw inscrire fii fi waaw comme comme li nga wax ñun ñun koy xam boo boo nee Santandé Gaspard Camara mm. yow yow yow xëy suba tey rek nga nga laajte ñi am doom wala ñu yor xale fa lañ dëkk. Mm. laaj leen rek boo xoolee ñi dëkk ci koñ bi bëriwul. bëriwul bu fekkoon koñ bi kii kese quartier Fann point E. bu fekkoon ñu ñoo fi fajoo mm-hmm. ah Fann Point E Amitié Rue 10 fekkoon ñu kese ñoo fi fajoo mm-hmm. yoo xam hôpital bi mel nii mm-hmm. laajteel ah eh, wakaam lay gaa yi jógee ay fu ay kóonoon fu ne lay gaa yi jógee fu ne fu ne lay nit ñi jógee fépp fépp donc comme li nga wax xale yi boo xoolee CMU bi moo fa nekk voilà seen prise en charge dafa difficile moom laa ci CRES dafa xaw a métti. Mhm. des fois sax des fois nit ñi dimbale ñu ci ay ay ay ay matériel ay dons lu mhm. mel ni ñu dëkk ci koñ bi wala ay bonne volonté. Mhm. dimbale xale ci ay couche ay yére bébé yooyu noonu. mais le reste tout est gratuit là-bas CRES leen looy fay. donc dafa dafa métti voilà. Euh, euh, wax nga ko sànq ci sa biir wax euh, bi nga nekkee major taxu ko yàgg certainement am na loo fi fekk mais am na foo xamante ne bëgg nga ko fa yóbbu tey jii bu ma la doon laaj lan mooy sa politique pour booster wala pour gën a dooleel centre bii di Gaspard Camara lan nga ma mën a wax par rapport ak ses ambitions ce projet ak fi nga fekk district sanitaire bi. waaw loolu moom <laughs> loolu moom ni kuy liggéey ku ne. Euh, bëgg nga par exemple fa ngay liggéey par exemple euh, voilà nga xam moo xam nga fay jógee wala nga fay des donc bëgg nga fa nga ko fekkoon mu yàlla def ci teg ci loxo ba mu ba mu yokk mhm. donc man nag euh, fu may dem loolu laay ñaan yàlla parce que avant mu fi am na yenn yu ma ne woon donc fu ma nekk fu ne bëgguma bëgguma di des gannaaw mhm. donc même bu ma jiitu aussi bëgg naa ci nekk ci ñuy donc loolu lañ yàlla donc personnel bi ñu ci ñun ñu ngi ci ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax parce que man mënu ma dem sans ñoom. Mm-hmm. ñoom tamit mënuñu dem sans man. Mm-hmm. donc euh, ñu ngi essayer di xool travail d'équipe kenn ku nekk li nga war a def nga def ko. Mm-hmm. donc suñu borom danañu dimbali ñu am résultat vraiment Gaspard moom euh, suba bu ma fiy jógee wala <laughs> keneen ñëw ki fi ñëwaat aussi dana ah lii kat vraiment bi fi si def na ko fi. loolu ñaan yàlla te xam naa ne may yàlla may di ak euh, sama kóolute fi ñi may ñi ma yilif mm. jox ma ko mm. donc yaakaar naa loolu dana antu incha allahu rabbi mm. te maa ngi ci ñoom nag li euh, euh, ñuy woowee ay les blouses blanches mooy médecins yi dañoo bañ trop leen di wax lépp lu jëm ci wàllum koppar xam nañ ne seen budget demeewul noonu mais tey jii bu ñu la doon laaj ci xayma masse salariale bi nga xamante ne moom mooy yow fii la teg ci bopp bi lan nga ñu ci mën a wax ak comment est-ce que xam nañ ne amu leen assez de ressources euh, comment est-ce que vous faites monsieur Sy pour vraiment le cinq de chaque mois ñi nga xamante ne ñoo bootu sa ginnaaw mu néew mu bëri nga mën a nekk un jour niroog ñoom par rapport ak masse salariale bi entre autres. voilà comme ni nga ko waxee bleu blanche yi ñëwoon xaalis <laughs> dama la koy joxaat parce que euh, fii dafa am lu muy doxee dafa am gestionnaire moom mi ngi ci kaw donc yaakaar naa ko boo gisoon mm. della wax chaque mois euh, hôpital bi la lay gagné lu muy dugg et mm. mais pour te rassurer chaque mois donc au euh, plus tard le cinq mm. non seulement danañ fay salaire mm-hmm. danañ fay motivation yi mm-hmm. loolu du tardé salaire du tardé. Mhm. loolu moom bu ma fi ñëwee léegi maa ngi ko fi gis te maa ngi ci gis yokkute aussi. d' accord mhm. d' accord euh, kon su ma la déggee bon donte am ngeen certainement du ñàkk ay difficultés mais Gaspard Camara à l'image des autres structures hospitalières euh, ça va quoi. waaw ñi ngi sant yàlla de. parce que parce que dégo dégo benn personnel uh-huh. euh, woo rajo wala taxaw ci biti waaw naan naan waaw waaw mois bee passé fay ñu motivation fay ñu salaire uh-huh. loolu moom wax dëgg yàlla du personnel bi dañ dañ dañ koy wax voilà loolu moom ñu ngi jot seen salaire chaque mois ñu ngi seen motivation chaque mois hmm. Hmm. Euh, moom de moo fi moo moo fi tressé laurier centre bi Gaspard Camara euh, ñu jàpp rek ne eh, bu weesoo bon lépp jëm ci wàllum santé mère enfant yeneen spécialité wax na ko neurologie am na fii radiologue am na entre autres euh, macha allah donc mënuñu def émission bi ah te waxuñu li nga xamante ne moom moo soxal actualité bi ah monsieur Sy tey jii ñi wax Euh, grippe di wax omicron mu mel ni nag structure hospitalière yëpp yi nga xamante ne dem nañ fa pratiquement tout Sénégal est alité ñu bëggoon rek euh, nga expliquer ñu ndax dafa am similitude entre lii di grippe ak euh, omicron parce que apparemment information bi foofu tamit dafa xaw a dafa xaw a des wala nit yi ñoo ñoo bëgg a ñu ñoo bëgg a gëm li nga xamante ne peut-être c'est pas waaw xam nga xam nga fii feebar bi. Mm-hmm. maanaam euh, Covid bi ngay wax grippe la déjà mm-hmm. je suis d'accord avec les gens grippe la mais bu na grippe la aussi danga war a dem hôpital xam ban genre grippe la xam nga xam nga yow mii bi nga grippé <laughs> nga ñëw fii ñu xool la ñu ñu xool ndax yow corona bi nga yore wala yore woo ko nit ñi tamit comportement bu la ñu war a am très bien nga ñëw ba Gaspard nit ñi tamit déplacement bu la ñu war a def mm. xool ah man maa ngi saxat sama yaram mi ngi tàng sama gorge bi. mi ngi métti wala mi ngi xasan dara xeeñu ma boo xoolee spécifique rek mooy xeeñ beeg ñàkk xeeñ mm-hmm. boo xoolee si si nga yi am na ci grippe mm-hmm. daana fi am mm-hmm. daana fi am dafa am la ci yokk rek donc loolu bu nekkee ci yow li gën a nga teel a daw hôpital ñu xool sa yaram ñoom danañu xool am nañ matériel bi nga xam ne daan la xool ndax corona la wala du corona bu du corona ñu defal la traitement grippe nga dem sa yoon nga mm-hmm. bu dee corona la aussi jox la traitement. une chose nga dem. Mm-hmm. mais am na ñoo xamante ne dañuy jàpp ne euh, feebar bi dafa ancré ba boo ñëwee ci structure yi rek automatiquement euh, je dama jël sama exemple bi ngay ñëw sëqat bi metti na affaire yooyu noonu mais automatiquement dañu ñëw jël sa température rek daal di jël daal di def la TDR Covid nga dem renfee léegi nag jël kii bi donc am na ñoo xamante ne dañuy jàpp ne préféré nañ jël ay tisane boo demee rek dañ la koy bindal aussi. waaye comme comme loolu sama benn patron doon wax ne ma ah si yéen temps yi moom ah cent personnes yi hôpital la ah, yéen ko test rek ku test majeure partie ku test ngeen wala mais mais boo xoolee quatrième vague bi la moo waral lool mm. ñu ngi ci quatrième vague te omicron bi comme ni ma la ko waxee dafa gaaw wàlle mm-hmm. mais nag pour le moment du ma wax ne nag dangereux wul mm-hmm. mais pour le moment moom wax dëgg yàlla gisaguñ ci danger mm-hmm. mais wala bi dafa gaaw trop mais il suffit ñu testé la mu positif nga jël say garab trois jours man nga dem sa yoon. Mm-hmm. waaw waaw bu bëree ba bëri euh, dix jours. wala mm-hmm. mais en général boo commencé jël sa garab normal trois jours nga gis sa yaram carrément ni mu lay commencé bàyyi. Mm-hmm. mais nag wàllante bi dafa gaaw trop trop trop trop. wàllante bi dafa gaaw mais aussi eh, am na ñoo xam ne dañu jàpp ne ku vacciné wu premier ak deuxième bu omicron bi ñëwee doo kii mais apparemment vaccin Covid bi. Euh, amul similitude parce que bëri na certainement ñu vacciné wu te instant bi waaw ah. grippe xam nga loolu lu ko waral. Mhm. maanaam ñàkk comprendre vaccin njariñu vaccin. d'accord moo waral loolu. parce que boo xoolee maladie yàgg na ci réew. feebar mbas yàgg na ci réew mi. Mhm. boobu moo mag sax suñ judd. biñ ñëwee dégg nañu naan mbas. mbas lu nga xam ko yow corona moo tax nga xam ko fekkee woo <laughs> boo dégg say maam lu lay wax danaan la lii moo ko fi jëlee ah donc nag feebar xale yi laago poliomyélite par exemple rougeole ngas mm-hmm. xam nga yooyu demoon nañ ba disparaître Sénégal instant bi déggatuñ ko woon benn benn yi am ni temps corona bi nga ko gis mu commencé ñëwaat mais demoon na mm-hmm. lan moo ko fi jëlee ñàkk waxul ne nag boo ñàkkoo doo feebar loolu aussi il faut population bi comprendre loolu. am ñax xam danaa man da ñàkku naa ñaari ñàkk mais am naa corona. man nga ñàkku am feebar bi. Mhm. mais est-ce que ki ñàkku ak ki ñàkkuwul bu ñu amee feebar bi benn la ñuy doon. y a des cas exceptionnels am na mais mais boo ñàkkoo feebar bi daal ak ki ñàkkul feebar bi daal du doon benn. Mhm. boo xoolee ki ñàkku mu am feebar bi. am yenn complication rek am lenn ci laxasu mhm. en général mhm. mais bu dee fekkee amul feebar yu garaaw yi nii mu ñàkku ñaari ñakkoom mu am feebar day jàll rek des fois sax nit ki dana ñoom pourtant man yëguma dara sama yaram de asymptomatique yi waaw ñu testé moom mu positif parce que dafa jëlee vaccin am tey am na ko ma wax fii ci salle bi <laughs> benn paa nee na man ñàkku naa sama ñaari ñàkk mais dañ ma testé ma positif mhm. day am xale bu jigéen boo xam ne mi ngi soog a wér corona xam lu kañ laa war a ñëw pour ñàkku. Mm-hmm. parce que affaire da koo sonaloon. Mm-hmm. parce que bii nit ñi naan ñàkku leen moom dafa gëmu ko woon. Mm-hmm. mais bu loo dalee ci koy gëm. loolu la. problème compréhension la problème de communication la peut-être dès le début. mais ñàkku teewut am feebar. Mhm. loolu moom il faut mu leer. Mhm. ñu ñu ñu tëjee docteur rek ci li nga xamante ne moom moo di yenn infusion yi euh, depuis le début gis nañ ne dañuy wax ñu boole lépp jëm ci wàllum peut-être clou de girofle gingembre ak miel ak yooyu ñu bëggoon xam euh, ndax scientifiquement mélange yooyu ñuy ñuy joxe ce qui n'a rien à voir ak antibiotique ñu lay prescrire la da koy jël en parallèle ñu bëggoon xam rek ndax loolu scientifiquement am na ben Euh, kii de guérison bi muy def ci nit ki wala genre defal xel la wala. waaw bala ma li ñuy ci loolu ay antibiotique ay garab am na ñoo xam ne euh, comme li nga wax dañ naan dañoo socc xaw ma dañoo grippe. Mm-hmm. dem pharmacie ñu jaay leen ay garab ay antibiotique ay vitamines ñu ci abusé wu. Mm-hmm. loolu il faut que di ci def attention démb rek maa ngi ko ci daan télé professeur. Mm-hmm. suñuy supérieur di ci wax di ci ñaaxaat nit ñi muy mm. professeur Seydi mm. donc dañ ci war a bàyyi xel bu baax boo feebaree demal hôpital médecin bi xool la bind la garab bi gën ci yow mm-hmm. nañuy éviter automédication yi ñuy def ça c'est pas bien mm. par rapport ci tisane yi ngay wax nag yooyu ne duma ci sori mm-hmm. en tout cas li ma xam mooy lu naturel daal baax na mm-hmm. mais nag lan mooy problème bi ban dose moo ci baax c'est ça qui pose problème tout ce qui est naturel est bon hein ngeer baax na yëpp yëpp baax mais ban dose lañu utiliser mu baax suñu organisme ça pose problème ak ñen ñoo koy utiliser. Mhm. parce que am na infusion xam ne est ce que sa rein attan na ko. Mhm. ak ñi nga xamante ne dañu am tension wala genre. waaw loolu loolu mooy problème loolu nag ñoom ñi utiliser produit peut-être ñoom war nañ def ay recherche scientifique ba ba ba ba prouver euh, affaire yi mhm. daal jàpp nga ni koo xamante ne dafa grippe mu sonal ko balaa muy def automédication na dem kër docteur. waaw daal laa joxe comme conseil. ku ci saxat mu jaaxal <laughs> demal ko docteur ñu xool bindal la garab. boo ko auditeurs yi moom de ki suba ba léegi moom mooy sànni ay xeer ndax sëqët bu metti metti laa fi laa fi laa fi indi. sama corona ay journaliste bi la. d' accord euh, Serigne si nag mu mel ni waxtaan wi am na solo lool waaye daa mel li ñu cëraloon ci waxtu wi yegg yegg nañ te sëqët bi métti na mais jéem nañ def suñu maximum possible pour téye ko suñu biir dënn bi mais à moment il fallait que sëqët bi génn ah ñu ñu jox la sa kàddu gu mujj docteur. waaw xanaa di leen jaajëfal rek yéen waa Rewmi FM mm-hmm. di ko jaare ci ci ci Daba ah Fatou Baba di ma di ko jaarale ci moom mu jaarale ko ñëpp rek vraiment kontaan naa ci émission bi mhm. euh, parce que lii opportunité la pour ñun euh, opportunité ñu par exemple ñu wax nit ñi dégg daa tax aussi nit ñi gën a xam mhm. euh, danañu dimbale aussi ci communication bi surtout parce que nee naa leen am na rajo yi fi ñëw loolu laa nee communication yi ñi ci mën a jàppale mhm. muy vaccination muy feebar bi lépp lu ñuy wax fii ñu koy mën di partager population bi di ci ñëwaat aussi Euh, moo xam ay publicité la moo xam yi ñaaxaat nit ñi dem vacciner parce que mm. commencé nañ tey euh, dose rappel vaccination Covid. Mm-hmm. waaw loolu moom ñu ngi ciy ñaax population bu baax a baax képp ku jëloon sa sa sa sa vaccin première dose Sinopharm deuxième dose Sinopharm su amee six mois bi nga jëlee deuxième dose beeg léegi six mois mën nga ñëw jël sa dose rappel Sinopharm. Mm-hmm. boo defee Astra même chose boo defee Johnson nag benn dose la woon. Mm-hmm. képp ku jëloon fekkee am na six mois boobaak léegi. mën nga ñëw jël si sa dose rappel Pfizer képp ko jëloon bu ma tey six mois mais Pfizer bi fi ñuy yàggul matagul six mois mais bu xaar ba tey mois sa deuxième dose mën nga jël si sa sa rappel di insister ñi nga xam ne aussi sa genre gi nga xam ne jëlul woon benn dose vaccin <coughs> aussi ñu jël si mm-hmm. seen première dose ak seen deuxième dose moo gën mm-hmm. parce que paa yi ñoom en genre personne ci bëri jël nañ seen première ak deuxième mm-hmm. li tax ñu accéléré troisième bi sax ñoom ci lañ bokk parce que ñoom ñoo ko bëggoon jeunes yi nga xam ne nag ñoom la ñuy ñaaxaat ñoom ñi nga xam ñoo asymptomatique ah xool sa waajur neex na xëy di ko gis neex na mhm. buñ sañu ñu dund dund dund dund ay at yu bëri mhm. il faut ngeen jàpp ci yéen mën ngeen a feebar deen def dara mais mag ngeen di protégé mhm. ngir yàlla jàpp leen ci ngir ñëw vacciner ci centre yi ak fi ngeen mën a dem parce que vaccin yi am na fi jaa ngeen jëf jaajëfal ko bu baax a baax moom Serigne si eh, mënuma ko wax dara parce que vraiment bi ma ko woowee pour def émission bi ak moom dafa disponible vraiment mu nekk nit ko oyof mais xeer yi ma sànni moom dal na trop trop trop sëqët bi metti la mais bon yàlla baax na j'ai pris mes médicaments avant de venir nee na bu ma ko bu corona wee man maa ko wàll <laughs> mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi doon déglu seen émission bii di SOS santé SOS santé nag amoon tey mbégte ak bànneex di dalal ki xamante ne moom moo di Serigne Sy nekk major euh, bu centre hospitalier wala bu centre bu Gaspard Camara waaye en même temps nekk euh, lii di puériculture euh, jaajëfal leen bu baax a baax fàttali ni Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy nekkoon ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité